ma jeexal ci ñaari question mooy wu enseignants yi métti na ci ñëpp gouvernement bi def na effort génne defe naa 69 milliards tekki taabal ji enseignants yi d'accorduñ ci waaye yaakaar naa ne am nañu ay propositions yu war a joxe su ma juumul suba samedi la ñu war a tasewaat ngir yàlla nañu yërëm askan wi de part et d'autre ñaan vraiment kenn ku nekk def li nga mën pour ñu mën a juboo waa santé yi dégg naa lu ñu yëgal parce que rek c'est normal ah buñ joxe kii rek keneen lu dox joxuñu ma et il faut savoir que grève enseignants yi li ko indi ñun ñoo ko indi ñun bi fi nekk Abdoulaye Wade ñu indi grève enseignants yi peut-être loolu aussi dañ koy fàtte rab euh, euh, fàtte bu gaaw parce que am na ay magistrats ay professeurs tout ça bi ñu waxee Abdoulaye ni ko suñu indemnité logement lii la suñu salaire lii la il a dit non c'est pas normal daal ni ministre des finances Abdoulaye Diop yokkal leen huit cent mille léegi nag yow ak kii. yéen a yam njàng am na bac plus 7 wala 6 man ma am bac plus 3 yàlla def ma am fu ma nekk moom mu am fu mu nekk muy gagné 3 millions wala deux millions man may gagné 300 mille c'est un problème wax foo wax jépp loolu la mais bon lu ci nekk bu ñu ko waxtaanee je pense que mën nañ trouver ay solution c'est valable également pour agent wu ASP yi ma dégg ne dàq nañ leen démb c'est vrai dañoo fauté c'est nit bu defee faute da nga ko naan yaa tooñ mais kii seen njiit aussi na dawal yërmande xam ne agent ASP benn boo ci jël fukki nit a ngi ci ginnaaw bi yoo nga xam ne xëy na bu ko dàqee saaku ceeb ba mu doon jënd weeru dee di ko yóbbu këram dootu ko am ça des problèmes te bu ñu nekk ci réew moo nga xam ne dañu ñu siiwa wut wutal nit ñi xëy nit ki même bu juumee mën nañ ko jubbanti mën nañ ko wàññi teg ko ci yoon woo nga xam ne xëy na loolu dootul am mais vraiment c'est un appel bu ñu lancé au directeur général te xam nañ ni nit ku dal la muy biram fay xam nañu ni souvent ay coow day am ay problème am dina am nu mu ko régler en tant que per de famille mais lii aussi vraiment dañ koy ñaan mu dawal yërmande pour que ñooñu mën a retrouver seen place